seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen may li ci yéene kaay cher jentenet yu enquête dal leen jàmm dalate leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook léegi fu yéeni kaay mi ci reportu élection présidentielle yi nga xamante ni jabono ji ñu toll nii dafay mel ni bëgg-bëgg président Macky Sall nag ñoo ngi koy bëgg a togg ba koy bëgg a yàq ko ci ay waxtaan yoo xamante ni nii bëgg nañ cee libéré wàlle détenu politique yépp yéeni bi dañu xamal ni projet de loi amnistie générale dil dil bii ñu njot na daf ko séq président Macky Sall mbaa nekkul dëgg boo xamante ni dañ ko doon nëbb en bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi ne depuis deux semaines laa la wax état Sénégal envoyé nañ ay délégation président Ousmane Sonko ca biir kaso ba ca Cap Manuel ba ñu fay dem tamit xaaji guddi lañ fa dem lépp ngir bañ ñenn ñi leen a teg bët tax nañu waxtaanee yenn ci ay ponk nag ci sutura yéenekaay bi yemu ci ndaxte def na révélation bu rëy nag ci jàkkaarloog yi nga xam ne président Ousmane Sonko doon na ko jàkkaarloog ndawi président Macky Sall yi foofu ca Cap Manuel yéenekaay bi ne benn Serigne Mbacke Mbacke moo yombal discussion bi nga xamante ni moo siqoon président Ousmane Sonko ak ñi président Macky Sall mi yónnee ca biir Cap Manuel li nag mat na deux semaines am na tamit ñoo xamante ni dugal nañ ci seen loxo bokk na ci ay acteurs yoo xam ne ñoo ci biir gouvernement bi ay responsable APR ak ñoo xamante ni jege nañu loolu première dame di Marième Faye Sall mu ñor xomm ñu yàkk waxtaan bi mën a am ca biir waxtaan ba nag yéenekaay bi xamal nañu ne président Ousmane Sonko li ñu ko proposé mooy benn loi amnistie boo xamante nii dana ko setal waaye nag dañuy reporter élection yi waxuma la juróom benn weer ak juróom-ñeenti weer sax waaye ñaari atu yàlla yoo xamante ni élection présidentielle du fi am loolu dina ko may moom président Ousmane Sonko mu mën a bokk ci élection présidentielle ya tey topp yéenekaay bi yemu ci ndax ba ñu Faye bu demoon ci élection présidentielle yi moo mujj xajamal nag waxtaan wi nga xamante ni defoon nañ ci conclusion diggante ñi président Macky Sall yónnee woon ca Cap Manuel ak président Ousmane Sonko libération yéene kay def ci révélation bu rëy na képp kuy laam-laamee ndax waxtaan wi am na Atepa ak Alioune nag dëggal nañ li ni mel na ñoom ñoo ko dox projet de loi amnistie bi nga xamante ni objectif bi mooy libérer képp kuy détenu politique te li ma leen mën a wax agum daal mooy ñaari camp yëpp waxtaan naa ak ñoom te ñoom ñëpp tamit kenn ku ci nekk may na ma ouverture may na ma nopp tamit pour déglu ma nañ ay waxtaan yu am solo njëriñ li moo di Sénégal gi daal di jugee ko ci guddi yi mu nekk Alioune moom gën a leeral mbir yi tey xamle ne gis nga ci fan yi ñu jëm nii rek laa la wax président Ousmane Sonko dina génn ci biir prison bi moo détenu politique yi nga xamante ni ñu ngi leen di tudd ci ay manifestation tax ñu jàpp leen dugal ci biir kaso bi ñoom ñëpp la ñuy libéré duma leen wax bés nag Alioune Tine yemu ca ndaxte mu ngi xam la ci bi ne waxtaan bi ñu tàmbali doole ci biir opposition bi ak état bu Sénégal gii nag fi mu toll nii jàpp leen ne côté bu nekk laa la wax ñu ngay d'accordum ñun Thierno Alassane Sall ne mukk man koy d'accorduma d'accorduma tey d'accorduma ëllëg ñuy dil ci kaw askan bi amnistie boo xamante ni ñoo ngi ci lal nag dialogue ci suuf képp koo xamante ni d'accord nga ci mooy waxuma la trahir nga sax askan bi waaye sénégalais yi dinañ la xoole ne nitu intérêt nga yéenekaay bi ne ca biir kaso ba de benn talib sow moom réagir na te rëbës la nekk waaye teewul nag nee na ñu ngi refuser catégoriquement bépp libération boo xamante ni jaarale wuñ ko ci yoon jar na sax ñu daal di tëdd suñu peine ba mu jeex tàkk waaye duñu nangu ay dil fekk jamono jooju ñaari président yi di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñoom bind benn lettre jagleel ko askanu Sénégal acteur politique yi ak état bu Sénégal ba ci société civile bii tey ñaan nag ñëpp daal di ànd ak dal dal reculer tuuti ñu dal di defaraat suñu réew waxtaan ngir jàmm mën a dellusiwaat ci Sénégal Mimi Touré yàkk leen lu mel ne xeme ñoom ñaari chef d'état yi tey xam le ne réew mi daal fi mu toll nii jàmm a ngi fi am fitna amu fi bu fekkee ne am na ko fi indi fitna mooy ki bëgg a salfaañee suñu constitution bi Khalifa Ababacar Sall moom tamit yëkkati kàddoom ci situation bii nekk ci réew mi mu jàpp ne jamono ji képp ku dem ci dialogue yaa ngi nax askan bi de man de ci dem man Sàll Ngaari Lamtoor en li wértéer moo di nguurug Sénégal moom ba léegi si laa la wax mayul kenn mu daal def ay rassemblement ci biir dëkk bi marche silencieuse bi société civile bëggoon a amal tey ji préfet bu Dakar interdire na ko de le quotidien yéeni kaay ne dëkk bi kay fi mu nii dafa jax ci assemblée nationale commission d'enquête parlementaire ba nationale ngir mu dakkal na commission d'enquête parlementaire bi ñu sóobu ci enquête bii na xool lan moo nekk ci biir yéenekaay bi na en tout cas ëtt politique bi fi mu ni ñoo koy togg am na ñoo xam ne d'accorduñu ci en tout cas bu dee Khalifa Sall ak Thierno Alassane Sall nee yoon président Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf moom di sàkku nag dialogue a am ngir Sénégal gi mën ko dëggal na crise politique fi mu toll nii la Sénégal nekk moo tax képp ko am kàddu fi xamante ni yaa ngi yëkkati sa kàddu ñaar ñi ñu gën dégg nekkoon fii président de la république démb démb def nañ seeni réaction président Abdou Diouf ak Abdoulaye sàkku ci jeunesse bii nag ñu daal ci violence gi ñu dëkkeeg yàqate gi subangoon guddéeg ba cëkk ñu ànd ak dal jamono ji ndaxte réew mi fi toll nii dafa am ñu ñuy siñ fang nag bëgg wut ay prox ndollu kon nag buñ leen ko may ñun waa Sénégal yemuñ ca ñoom ñaari président yi ndaxte ñoo ngi xam la ci biir yéenekaay bi ne fexe ba amal ay élection présidentielle le décembre ñëpp mën a dem ci ay élection mu leer nañ te du am benn parparloo bés bi la journée surprise kay moo di médiation bi nga xamante ne am na ci diggante président Macky Sall ak Sonko bu fekkee ne moo war a tax na ñu daal di reporter présidentielle yii report di kaw ko yéenekaay bi tuddee de est seeni waxtaan war na mën a tax nag réew ñoo dox lépp ñoo togg lépp ànd nañu toog waxtaan ci période bi mën a waajal nag élection le 15 décembre moom di xamle ci biir yéenekaay bi na waxtaan waa ngay continuer de diggante président Macky Sall ak Sonko te moom président Ousmane Sonko dina génn prison ci fan yi ñu jëm Khalifa Ababacar Sall nag moom jàppee mbir yi revanche ndax nee gis nga mbiru dialogue am na fuy réew di toll dañ koy def waaye na fekk na du mbiru lijjanti sa bopp na ko askan bi ca boppam nag daal jar Xalifa Sall di xam ci biir yéenekaay bi ne ñun amul luñ ñu yàkkul laa la wax ci ñetti weer yi ñu génn ba ñu demee dialogue ba ba noppi laa la wax amul luñ ñu tegul suñu kaw fi toll nii am na ñoo xamante ni dialogue dong leen di génnee ci situation yi ñu nekk Amadou Ba bu ex di xam ci biir yéenekaay bi ne gis nga loi d'amnistie bii ñuy wax jamono ji amul jeune exil donte ay waxtaan fi mu toll nii am na pour ñu génnee ko ci prison bi waaye bu ñu sukkandiku ci biir yéenekaay bi am na ay sources yu wóor ne fi mu toll nii diggante président Macky Sall ak Sonko lanu déggoo nekkul sax présidentielle yi daal di am le 15 décembre 2024 waaye lanu waxtaanee mooy ñu reporter élection yi fi ak ñaari at est que président Ousmane Sonko nag accepté na li ne mel waaw wala déet lii moo jar a laajte waaye waxtaan bi moom am na leneen li xam ne ni danañ ci dugg Sall nag mel ni kuy profitoo ci situation bi ne gis nga am na ay jamono yoo xam ne da ngay jàpp ne yow rek yaa am dëgg de kenn mënul am dëgg léegi nag jamono ñëw na àtte mag ñu bari nit mënoo am dëgg ci ñëpp waaye bés dana jot position yi nit ñi jëloon nga jël ko su boobaa ngay comprendre lan moo tax nit ñi jëloon position boobu la taxoon nag may dem ca dialogue national bii léegi nag lépp leer na l'observateur ne fi mu tëddi de président Macky Sall wàllum reportu élection présidentielle yi moom position changé wul manœuvre yi muy def nag fi mu toll nii moo di ba jekk doogu mën a ci nguur gi teg lépp nag ci waxtaan ak ay conditions Médina lii bokk na ci li tax Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf génn ni ki démb ngir sàkku ci askanu Sénégal gi ñu ànd ak dal bu dee loi d'amnistie bi nag li ko wund mu di képp ku ñu jàppoon ci manifestation mars 2021 jàpp juin 2023 ñu mën laa libéré bëri na ci loo xamante ni leeragul ci biir loi bi ndax loi bi bés bu ñu ko voté képp koo xamante ni ñàkkoon nga ci sa bakkan say wéjur dana ñàkk ndax dossier ba day tàbbi géej ñi ci ñàkk seeni matériel ñi seeni bien ñi ñu yàq seeni magasin ñi ci ñàkk seen liggéey ñoom ñëppee mujjee perte mbiri criminel yi nga xamante ni tamit amoon na ci jamono boobu yóbbu lu ci bëri dinañ ko faar même coowal biisu yaraax bi nga xamante ni taaloon nanu ko loolu tamit ca la bokk source amam deesuwaat ci waxtaan wii ñuy laam-laamee est-ce am na ci diggante président Ousmane Sonko ak Macky Sall yéenekaay bi ne li wér te di waxtaan bi moom am na mi ngi am nag ci période bi nga xamante ni nii ñu ngi doon lijjante validation nag parrainage yi ci la nguur gi daal di benn délégation ca président Ousmane Sonko waaye ci début bi proposition yëpp na président Ousmane Sonko daf ko lànkoon yéenekaay bi ne en tout cas Alioune Tine moom def na ci lu rëy dialogue bi nga ni tamit bëgg na ko dem na ci ñoo xamante ni ñoom ci biir bi jëlee kay mu di ay mbokkam yi nekk ci société civile bi ndax am na ñoo xamante ni dañoo seetlu ne dafa dem waxtaan ak président Macky Sall ba noppi soog a ñëw waxtaan ak ñoom moo tax ñu ci mel ne waa aar suñu élection dañoo lànk ne ci dialogue bi ñoom waa aar suñu élection nag jamono ji dañ leen a interdiral seen manifestation bii ñu waroon a amal niki tey jii ci protocole bi nga xamante ni moo di def ay révélation yu rëy nag ci waxtaan wi ñu séq ñoom ñaar ne mënul ci ni le président Ousmane Sonko di génn dee waaye ci fan yi ñu jëm danañ ko gis mu génn prison ànd ak nag détenu politique yépp yéenikaay bi dañu xamal ni président Ousmane Sonko ak Macky Sall nag fi mu amatuñu choix ndax réew mi moo leen war ëppal seen bopp réew mi fi mu jàmm lanu woote waxtaan moom mënul ñàkk ci seen biir bu dee lu jëm ci wàllu amnistie bii yéenikaay bi mu ngi laajte pour kan la Thierno Alassane Sall ne en tout ak lu ci xew képp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 disponible na partout Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak Mame Cheikh Tidiane numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li leen ak Cheikh numéro bi di plus 34 602 ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li woote leen ci plus 33 44 75 08 39 yéen ñi nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñi nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama Jarama Pharmacie Al Maktoum mbokk yi yéen ñu amoon jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram tolof-tolof ci seen dund ci seen wàllu liggéey ba ci seen wàllu sëy solution bi ñëw na ak Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax Serigne Modou Khary Mbacké dafay def listixaar bu wérte woo te leer nañ ñi day def tamit seet façon seet yépp daf koy def moo xam bu biddiw rawxaan kurus suuf waaye tamit képp koo xamante ni am nga gàllankoor am na fi ay sangat yu la mën a jàppale yow mi bëgg bayre la cat la nga bëgg wërsëg ubbeeku fii daal solution la am na ay jaaro cat jaaro kaaraange jaaro wërsëg jaaro bayre yow mi am jafe-jafe doom yow mi bët sonal lool soxna si bëgg a ëmb te am jafe-jafe jigéen bu am jafe-jafe ci wàllu réglam yow mi say nopp di riir kuy fatt saa su nekk mu Modou Khary Mbacké dina la jàppale waxuma la dara sax waaye dafay toj liggéey di dindi tooke ci yaram yow mi am bëñ biy metti ku paralysé mu xam xale nga wala mag yow mi boroom yàlla baax dafay faj tamit ay rab di def ay traitement ci wàllu yaram yow mi tële nag wala boog nga gaaw a daanu boroom yàlla baax am na ci ay solution yu bopp wala nga yor hémorroïde wala nga bëgg bayra njaay fi ñëw gis fi solution adresse am nag mu ngi ci diwaanu Kër Massar M3 arrêt 54 bi ngay jubal jëm boulangerie 2000 boo fa yegsee foo laajte Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ñu joxoñ la ko pour jokkoo ak moom tam mën ngeen woote ci numéro yi di 77 126 10 77 wala 77 609 10 41 ak Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ku jokkoo ak moom gis solution ci say problème jaaraama Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax